ma la koy woon mooy mm-hmm. euh, yow da nga nekk koo xamante ne vous êtes un homme public c'est mm-hmm. vrai mm-hmm. da am xam-xam da ngay da da ngay faj mais su lu bëri surtout rawatina sa mariage ak ku ci mel ne soxna Sumbulu dafa dafa nekk mariage boo xamante ne tout le monde en site internet yi dëgg la ñëpp ñëw jamono ji c'était en 2020 en 2023 ay li si xew ak ni ñu ko wanee yëpp dellu waatoon amaatoon di ko defaat waaw lu tax. ah parce que Sénégal ku ci nekk sa yaa xam sa sa sa bëgg te li ñuy wane est-ce que man la xam nga tey dafa am loo xam ni man dama jàpp ni ci ñàkk xam la la la bokk est-ce que am na ci loo xam ni yàlla bi ñu tim ni ko ñëpp di gisee rek laa koy gisee kay filmer doo ko gis. wa illah it eh, yaa ngi wax ak kii nga gis mais mënoo ci dara yow tey mën nga fii nit filmer la te ko xam. ba sa biir intérieur parce que am na ay ne dañu dañu <laughs> filmer ba filmer sa biir nekk. waaw mais xam nga ko filmer téléphone la yor n'est-ce pas. Mm-hmm. kooku filmer téléphone la yor filmer léegi est-ce que ba koy filmer yëg nga ko wala est-ce que foog xam nga tey ki am xërëm def ko te Sénégal nag dafa am loo xam ni man damay jàpp nii dafa man daal gis nga dëkk bu naqaree dund la. waaye dëkk la boo xam ni it boo fi nangoo dund it euh, boo fi bëggee dund noppalal sa bopp mooy lépp loo sentir moo xam ne lii yëg ngir def ko mais à part ça pour li nit ñi di wax ak xeet yooyu non bi tey loolu képp ku ci dund billaahi doo pousse doo bougé fii ndax dinañ wax a wax a wax ba di nga war a xëy génn ni xaaral tey ma fay samay téléphone tëdd ngir fitna mais nag boo demee ba miin loolu ci ñoom rek da daal di noppalu mais tey bu amaatoon bon li nga xam ne moom sama sama yëf bopp la mën naa ko da aw ma ci problème mais lu ñu ci dul ñaaw lu mooy ku ci nekk ak sa version kii nii nii lay gisee kii nii nangam kii nii maandu nag moo bareetul Sénégal ci gàttal ci côté. alors bi sëy bi amee rek automatiquement dañu gis ñoo xamante ne. Hmm. dañ ne dañu am xam-xam. Hmm. ñu commencé hmm. déjà di prédire li nga xamante ne. moom mooy seen seen divorce. léegi yow loolu. certainement da nga ko doon da ko doon gis di ko di ko suivre parce que da daan. bari na kay c'était viral ci li nga xamante ne moom mooy toile bi. parce que ñi la bëgg. Euh, a nga ci doon waxtaanee ak sa soxna. ñi la bëgg ñoo jël vidéo di la envoyé ngir te duñ nekk Sénégal mais xam nga mas naa mas nañ ma ci laaj ma wax gis nga ki gis ñetti weer danga ko koy nangul foofu la gisam toll ki gis ni du yàgg da ko koy nangul foofu la gisam toll parce que tey nit ki mën na gis fii ci miir bi nit ki ñëw gis li ci ginnaaw miir bi maanaam day nekk tolluwaay boo xam ni niveau la boo xam ni day puus mais tey bëri na ci loo xam ne xewoon na ci Sénégal ci ci takk gi ñii ak ni ñu waxee woon tey ñi nga gis ñi ci waxoon ñëpp ku ci nekk defaraat na sa wax n'est-ce pas tey ku ci nekk waxoon ci nangam laajaat nañ ko mu ni waxul woon loolu da koy nangul li mu waxoon parce que amaana moment bi muy wax ñetti weer moom loolu la gisoon mais bi mu demee ba ci biir gis na ñetti weer yi tuuxu moom nangul ko leneen lu mu gis rek mënul ñàkk alors au fur et à mesure mm. ñuy dem bi mm. nga xamante ne moom mooy euh, sëy bi aussi amaat beneen coow mm-hmm. ba ñu cité ci sax animatrice bu ci mel ne Adja Mass tem tem nekk si ñun. Hmm. boobu aussi épisode boobu aussi. Hmm. naka nga ko dundee parce que dans la vie d'un couple c'est tout à fait normal day am ay hauts hmm. am ay bas am ay séparation après ngeen ngeen retrouver wu mais coowaat loolu aussi naka ngeen ko naka ngeen ko dundee. jàmm ak salaam yàlla xam na ko jàmm ak salaam xam nga dafa am lu bëri lu nit ñi di def coow fekk du coow xam nga ko wax. tey comme bëñ ak làmmiñ dëkk te des fois ñu laalante sax ba mu jaaxal la rawatina nag sëy nest pas mais tey damay faral di wax ni ak it am na ci loo xam ne buy am toujours ci couple na ko nit ki sant yàlla gis nga mbir des fois wax dem ba bari ca wallahi tojtal da nga daan dégg mag ñi ñu ni leen lii xew na ñu ni nañ tojtal loolu nga gis mbër mu war a daanu daan boppam jugaat parce que boobu day tojtal li fa ko ñëpp di xaar surtout nag si boo xam ne dégg coow lu fi amoon lépp lépp lépp lépp lépp lu ne nga dégg ko ca kon dafay baax te it gis nga te Sénégal di am ci ñoo xam nga am na dañuy wax mais am na ci ñoo xam ne dañuy wax booleeg jëf nee naa la loolu lay laaj ko sama bunt kër oto da doon ñëw gas ci célébré yoon laajal ñii def dëddale def kaani def lii def lii lu dul benn du ñaar. mu wóor la yàlla xam na ko mu wóor la ni ñaata nit a ciy def lu mel noonu. xam nga man yaa ngi def peut-être muy essuyer mais ñaata sëy tas ci loolu ñaata sëy nga gis jëkkër ak jabar mel ni ñu waroon a mel xëy jabar ji tegal tegal ko ndékki préparel ko jékki-jékki rek ay ca maara day taali waaye yàlla xam na ko li may faral ak ñi dëkk sama kër ñoom xam nañ ni sax mbir mi ba mu amee du du tayef dañ koy xamal sa bopp moo tax daanaka après ay ay réedale parce que yow xam nga li nga xam mais ñi ñi xamul Sénégal da nga jikku ne ci biti gën a xam ki ki ki kii lay nekk biir këram ak la muy dund loolu moo ma jaaxal suñu réew donc dafa doon am dafa am ñu doon essayer dëddale la ak sa ak sa soxna loolu bari na mais du du du ñun rek mais xam nga ñaata couple moo tas ci loolu bari na di tey sëy yi lu ci ëpp lu ci tas yu mel noonu la yàlla xam na ko ak yonent bi ñii nag am bopp téye ko gérer ko xam lan la mais ñii duñ ko am nag tomb si tombé ci piège bi lii rek la mais tey muy man di moom tey xam nga nit dama naa la mooy li ma faral di wax wax ko fépp da ngay joteeg sa soxna nga xam ni kat damaa joteeg moom mais dama lay wax ni la bis ba bis ba muy dem da ngay laaj sa sama ba ci jànk yi mu añandool kaf ak ñoom réew ak ñoom ku leen ni woon diw mii lii la da ko dal du ko gëm pour wax la des fois nit def dara sax te nga naan kii est-ce que tey fam la te juste ba muy dem sa oto la taal bàyyi fa otoom dem kon xam nga ni kooku kon amul amul dara loo xam ne kii na ko. d'accord donc moom bi muy dem yow sa oto la taal dem. non waxtaan mu ngi ni woo ma maa ngi dem bërëb sànga ma ko demal tëjoo. boobu maa ngi sama bureau di recevoir pour nga xam yàlla mi ñu tiim kon nit ñi li may wax rek gis nga sëy na ko nit ñi gën a ñàkk te bàyyi ci xel. Mhm. loolu daal conseil la parce que tey li nga li mu dalee nii nga xam la nga xam ni teg xam fa muy mujj bari na ñoom dal na leen maare day